Euh, ci biir loolu euh, réunion de sécurité bi dañuy jëm euh, ci mercredi bii di ñëw ouverture exploitation bi nga xam ne le ministre des transport moo koy présider fajar nag lay nekk pour wane ne transport bi nga xam ne nii moom la ñuy dugal Dakar BRT bi day teel a xëy guddee tamit pour ñi nga xam ne dañu bëgg a delluwaat seen kër exploitation bi ñu ngi koy xaar ci 6 heures du matin ba 21 heures dañuy tàmbali nag tàmbale bi mooy euh, station yëpp euh, duñ ko exploité euh, xam ngeen ne BRT bi ñaar fukki station ak ñett la am na liggéey boo xam ne dañ ko war a eggale ci yenn station yi waaye li ci ëpp dayo muy fukki station ak ñeent donc li nga xam nante ne mooy station yu ñu prioriser pour tàmbali exploitation yi mooy téeméer boo jël juróom-ñett fukk yi Euh, seen soxla dinañ ko mën a matale mooy euh, fukki station yo fukki station ak ñeent yooyu